الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدو بي كوشي تي بي جسانو فيدو بي دي وخ رك بس بي كين كو تودي موكو موم نداخ لماي وخ توجور رك نه خار باخ داي ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء كوكو يالا مكو جوخه ku mu ko jox yàlla moo la ko jox ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee yonent du ngóoram yàlla moo ko neex mu def ko ko ndax su demee banaan ko laysa laka min al amri shay'un loolu rek moo koy wone ne moom nekk lul mbir mi dara nekku ci yàlla moo ko ko defal waaye alquran dafa wax ne يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان من فوف لا يخول سي باي اك نيت ني باخ نييب اك سيرين توبا فوف لا لين دي خول خولو ما لين فنن في واو نخ فوف موي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم كون تاي جي سو باي جوغي taxawaay boo xam ne nii tey foo tudd Serigne tubaa tudd fa ala Cheikh Alhaji Malick tudd ko fa te bokkuñ jamono dama ne la foofu laa koy xool te kat bu doon jaamu yàlla rek mën naa am luñ ko fa tudd waaye dañ ko fa tudd tudd foo xam ne nii dafa amaloon njariñ nit ñi bi nga alxuraan waxee wa ammaa maa yanfa'u naas fa yamkus fil ardi kon lim doon def dafa doon amal njariñ nit ñi moo tax fii ba yawmal xiyaam danañ ko di tudd ci àdduna bi yépp kon tey man fofu lay waxe développement bi nga xamné ni mom lañ tudd fi man daf ma yem ndax ba tay ji ñun ñi mënuñ def lolu mom mu tok né ne alaaji abdoulaye moo jur té dana am adiya mu jog di wër fune mudampa, mu dem fa fune mu dem fa ba di tasare diine fune mu dem fa di jangale fune mu dem fa ba tay ji afrique gi fofa dem danañ la wax bàyyi ndax man kat wax naa leen fii li ma gën a yéem encore damaa dem Chine 2004 bi ma fa demee dem ci fu ñuy wax Guangzhou moom Guangzhou la demoon après mu jaar Guangzhou avant muy am Pékin kooku ne ma ñun am nañ benn nitu yàlla bu fi ñëwoon Afrique la dëkk xamuñ fan la dëkk mu génneel ma kayit bi mu am lu mu fa bind mais signature ba nekk alkawlax yi yàlla xam na ne loolu ci li ma gën a ma gëna bëgg kaolax ci la bok ndax kat man kaolax ñakoon na ma man joggé na ko ki dem Dakar daanaa tok fi ñaari at ñetti at duma fi ñew voté wu ma woon fii ñàkkoon na ma Wakouli TV am ngeen ngeen ñeñ ñi ànd ak